nag léegi bu ñu jógee ci étudiant ba nga xam ne dafa dégg réel la rek yaakaar na tam daa day bugg bu buddi étudiant ikat yi maa leen di nuyu léegi ñu seeti benn paa ba mi mi mi mi mi mais mam boy mais mam boy day def Kouthia Show ah maam mais maam doo génn sa kanam gi maam bu la am kersa non maam ay maam woo maam woo ma sa kanam maam salaamaaleykum <laughs> nangeen ngeen def waa TFM <laughs> billaay bu ma sama sët xàmmee dinañ ma mere nangeen ngeen def waay ah ñun de lenn rek moo ñu fi indi billaay wallaay taalaay nit dangay wax dëgg rek te yàlla tax yàlla nee na kii wax dëgg du ma ko weccoog mukk kii wax na ko sudul noonu kon dëgg rek kay njëkk te dëggee mujj dañu di ay mag nag te mag mag la <laughs> ma ne ko mag mag la <laughs> xam naa ne buñ ma gisee ci télé bi dina la ab mag buy ñëw ci télé gune di ci wax waxu gune danañ ma mere waaye ña may waxal bekk woote ma ngir jumaaja wootewuma ngir màggal gàmmu woote wu ma ngir wàccaayu koor damay woote ngir bànneexu àdduna <laughs> ma ne daal gune gi sant jaañ di benn baas yooyu mu doon jaay daal dañ naan ko ngóora <laughs> ak mbir mi <laughs> moom daal moo manqué <laughs> ñaari weer gi nii teguñu ko bët moo taxit gis nga dama ne jaamul yàlla ca ma ko waree jaamu te takk soxna ci farata sunna Muhammad yàlla nee na ku bégal sa jabar ma bégal la waaye bu fekkee na da nga dem ba booy bégal muy càng boo gisee ko la ca ngarti moom te xam na yaa ngi jaamu yàlla <laughs> wallaay wallaay sàllaaw ñun nag troisième âge yi nga xam ne dañoo dem ba <laughs> ñenn ñi laa wax du ñëpp nag am na ñu yàlla may de <laughs> waaye ñun ñi nga xam ne dañoo dem ba càng te kenn mënuñoo puus lu dul ngóor ak mbir mi moo tax bi ko duwantee ñu dem ci jaañ naar benn baas ne ko lu xew mu ne douane bee ko tee ne dañuy xool ndax mbir mi am na lu ci nekk war a nekku ci ñu ne ko ñun de xam nañu la ca ne <laughs> bu njëkk ba dañ doon dem ba aayaa <laughs> waaye léegi dañuy dem ba aa yaaga dem na sàllaaw <laughs> ma ne ñun ñu koy jëfandikoo billaay wallaay taalaay genn waal gi yëpp ngir faju rek la am na ñu koy jël ngir bànneex <laughs> ni ni man am nañu koy jël ngir faju tànk yu métti ak ndigg guy ruux <laughs> moo taxit ma ne billaay yàlla tax may wax du kersa du kersakat ndax ku ci tëdd guddi sa soxna fëgg la na la alaaji nga ëlbatiku naan ko déedéet yaram bee metti ameel nga ko àq <laughs> te yàlla du la ko baal moo taxit ñun ñii nga xam ne dañoo cangle tale <laughs> ñu ngi ñaan ministre de l'intérieur ak économie nañu bàyyi mbir mi ngóor a dugg ndax fu mu ne ñu ñëpp dafatuñu aaya <laughs> billaahi wallaahi taalaay loolu rekk la nag doom waay waay waay waay dépense bi mot na reer bi mot julli farata yi ñu motal ko di saraxe di jaamu yàlla waaye nag ooy <laughs> ooy ñun daal li ñu manqué mooy ka ñu doon puus ba mënatuñu puus léegi ndax eh <laughs> ni xale yi naan aaya <laughs> aaya bi mbam ñu de ñu ca aaya waaye bi mbam ñu ay waay waay kon Macky Sall sa programme bi ngay liggéey yàlla dafa na ci jàmm boobu bëggee na ñu gën a bég na nga bàyyi mbir mi daa dee duggaat ci réew mi ndax ñun ñëpp cag nañu <laughs> man mi ci am juróom maa ci xam dara e aji bam bi <laughs> aji soxna <laughs> aji ramatu e aji dëgën taa yi dama dugg xaw la taluma ci ñoom ñëpp taluma ci kenn ndax feeg benn baasa nga ca fañ ko téye ñun ñëpp dañuy tamit aayaa rek waaye du ñu bimbam